highest population in the world. Is it not China? China. I think it's Nigeria. ban la ka mo foso ñoo Gambia. ñun joolaa ñun ñoo ñoo. Mandinka I think. Mandinka ya. so kan mo nek sun current vice president. xamuma ko. something Jallow. Adam Barrow. Ko bu jigen ak bu gor naka lañ ko dee waxe ci English. góor bu lan bu jigen ak bu gor. man golo an hu man golo rek. ñap sa Yes. <laughs> kalian menggunakan konvensi English? No, udah nggak buka más drinking, pero ya tengo asalaamaaleykum jërë ngeen jëf di leen dara fi si Gambian Talents TV kon nu nga ko doon defee ne di jëm si beach yi di waxtaan ak nit yi di leen di remind rek ci si Sunday Sunday beach show ST kan nga gën a laaj. taakay. ST daf maa neex parce que ST lu muy wax moo moo moo nekk sama living quoi. yeah ST moo ma gënal attaque. yeah attaque attaque lu muy woy amul sax mais ST dafay woy loo am sens. yeah. ne yow kii dafa nekk di fen. nu moo fen. hey dégguloo ñu ne hey. meeti gen du dee musa seeda. hey meeti gen. mbaa yoo nga luy xew. Mana pofa lama pil. Agbena pil, agbena pil, agbena pil. Takan lama jen. Agbena jen, agbena jen, agbena jen. Meti jen, dia di ba. Oh, ke fenden to, nyun ni fenden to. Ala la ken ken to. Ola na la mo la bi. Anteri di teri di bi. Dol fon don danyo la bi. Son, bate jehud. Taglansi table. Kuma jo suma respect di na doctor cable. Hey, ame bang. ma masa ba dindi masa badal nara dindi masa badal la bikawa bete esti ma boyo iraspe ko di ala kapteno ndama ni amu wo wonya ni yamuto wo nyaw wo mfego le tinanga na tempo lose hey ata do geri wodi no ma hani is me one man ana doglo you know one man atang na lool tagay da kala jango ngong buno ana lool mo nega number 1 ndax rad na jigen su nekké ci relation mu am xarit bu jik goor waaw xarit am na xamne dañ day am xarit bu goor bo xamne def lay xelal lu bax dila wax defal ni dila wax defal ne xam nga xarit mom, am goor amna am parce que léegi nga am xarit bu goor sa mo gën xarit bu jigen. parce que xarit bu jigen, mun ngay ànd mom nga dem ba am keneen nga xamne def la bëggu mu ñow jaar seen diggante yaxaa ko léegi lolu bari na torop man am friend bu goor mënuma ko am sax yeah xarit jigen led la am ni yi ñu suñu lifin di góor ak jigen la aduna xam so foog ñu am xarit yi so di leen dugg si biir waxtaanante ak suñu ay question it's a fun time so di ngeen si ak nga xamante ne mooy Fatou Diouf comme lu ma la ko waxee si njëlbeen bi this is summer time and it's Sunday beach show nu ngi ko defee saa su ne dem topp leen ma sant yàlla boole mu ñag moytu rek <laughs> tur bi Mor Cissé mo ñu ko war Mor comédien lan moo la andi woon si bi waaw ñëw féexlu si xam nga ñëw am live ah, ñëw comme coono yaram bi xam nga gëj a sangu si géej bi ñëw xam nga ñëw Philistin loolu soo loolu moo ñu fi indiwoon quoi. attaque kan la la ilaha illallah ST attaque <laughs> booy man attaque moom ma gën a ST. lu tax loolu. ndax euh, ST li may wax xaw ma ko. waaw man nit ki lu may wax la laay dégg attaque lu may wax man moom laay dégg ST li may wax man dégguma ko kon léegi man attaque lu may wax man su loolaa mën a baasu ne moom ma gën a ST waaw waaw. tey yow nga relationship. ndax yow am nga nga am xarit bu jigéen. waaw waaw. tàllool man sama man sama àdduna su ma soo seetloo sama àdduna comme sama raay naaw lu ma nekk demee nii soo xaritu jigéen ñu ma am ñu ëpp xaritu góor yi waaw man jigéen ñi laa da gën a demalanteet soo jigéen ñi laa da a mën a muuf na xale góor yi moom mooy loolu waaw wax ki tey lii ëllëg mu génn waa toogaal sa morom yoolu noonu understand nga soo ñun góor yi daal mooy loolu moo tax man xale jigéen daal laa gën a bëri benn xarit la am mooy booy bi soo ñun ñaar fi mëntu dem ñoo di ànda waaw artiste comédien la soo ñun tu ay comédien leen ah, caméraman leen journaliste leen weldamaan leen. électricité euh, euh, mais mais ñu benn comédien boo leen def. waaw comé comédien euh, artiste comédien ban come comédien nga bëgg a ban. boo def rek baax ah man dama a réeloo de kii caméra bi rodde ah waaye léegi xoolal ne bëgg léegi ko bëgg. mooy comédien mag bi. waaw ah, mel si boobu. ah boobu maa rek ma may la benn léeb wala bëgg nga lépp. ah waaw dafa am benn waay boo xam ne waa ji foni foni foni la woon benn waaye benn moto dafa ñëw ba kosurul mu kal moto bi dafa ñëw ba kosurul mu kal dem waaw ñu woo sapeur pompier fire service ñëpp ñëpp ñëw pour ñu yëngal moto bi moto bi mëntu dem benn jigéen moo nekk dawal moto bi waaye moto bi seet ne jiyaay yëpp a dox béréb yëpp a dox waaye ñu xool xool xool xool ne moto bi lu ko loo lu ko taxawal maam xamuñ ko ndeke xale bu jigéen bu nekkoon si liir si liiri yaay bi mu moo téye béréb bi naka la biir yaay moom moo téye birek bi. naka naka la defee ba génti. xool nañ xool xool ba sonn bi ni ko maam xale bi nu mu téye birek bi sax mooy jaaxal benn médecin leen woo mu ñëw opéré yaay ji ba mu génnee yaay xale bi si biir bi ñu gis ne loxo bi mu ko téye si birek moto bi. ay nijaay loo déggee kii lu bari ñeme maa taxaw fii la. lan moo la andiwoon ci ñun xam nga ñëw féexloo génne stress yu sew yi nekk si biir xam nga dëkk bi dafa bëri stress. Ah, yow ak. soo dem am la. waaw. est-ce que yaakaar naa kan mu nekk sa favorite artiste. man moom dégg nga ah ma ñoom ñaari kenn. waaw jos man moom mbalax musique moom daanaka lu mu ko dee fuloo waaw jos. is it right comme yow góor ba pare nga am xarit yu jigéen. ah of mun naa nekk di. Ah, parce que. mun naa ne comme xariti jigéen ñi duñ la mun a dee ak lii di la gindi sa àdduna yu bëree bëree bëri fekku fi sax comme sa xariti góor yi bëri même xarit sa léegi mun naa ne amatul daanaka bëriwut te fekkee am na tam benn nga si tànn wala tam benn boobu noonu mun nga koo tànn foog ne moom la fekk nekkul moom yes ah waaye mun naa ne jigéen xariti jigéen mun ngaa nekk moom yes àdduna si léegi-léegi sax am na yenn euh, problème yu nga di am ak yenn comme tolof tolof yi ngay jànkuwante ñoom ñoo si dee mun a génne a Jos. da ngay ñu benn comédien ba non man moom Jos li bu gàtt la laa parce que am na comédien xajut si mooy loolu Jos si yoon leen nekk a ah ok garaawul Jos benn benn booy la woon jaaykati taar yi xam nga booy jaaykati taar yi nii rek Jos mu ngay liggéey comme about building juróom benn kii taa juróom benn deg ci kaw. mu ngay mu ngay jóg foofu mu ngay waaye foofu la jógee ko fekk ne xam na am na xale jigéen yi romb rek mu ngay freestyle lu mooy freestyle doon juróom benn deg yi rek foo la daanoo rek. bu mu daanu ne pam nag taaw jàpp booba xale jigéen ñoo ko ah booy nga garaaw mu commencé xam na ne moom xam na ne day dee moom xam na ko ah mu ko ah gars yi ko ah boo jox ma xam ko sa nii dafay ne sa yëpp daf ñu ne nii nii karaw karaw mais non garaawul fi gars yi <laughs> woon tey si bi ah tey dama ñëw traîner jëli bagage yi am nga yaay so lan moo la gën a si bi Uh, at least xam nga um, nit ñi su weekend bi leen di mën a am less of time so am man it tamit the same thing I feel like coming meeting old friends xam nga so avenue boobu and then that opportunity moo tax picc yi jëlaat ne xam nga. Mm-hmm. ok between two artists yi attack ak attack ak ST uh, kan moo la kan nga gën a like. a uh, man gam gam gam music xam nga in general I like it all so. <laughs> you have to um, choose man, one. I have to choose one. Anyway, man, I prefer ST uh, because uh, I think one thing, Sunyowe, come like when it comes to what artists and, and a musician is, uh, we want to see where exactly Lenyo Jange because then I look at the, an artist, Kunyowal you'd see or Kunyowal situations that we are facing as a country. For example, when ST uh, sing, most of the time I look at situations that we face and then when you look at attack moom su they are very good though but then you realize that attack is more of an entertainer They want to entertain daf dee mën a xam ginger, nini, but then uh, at some point da I realize ne generational music ST moo ko dee because uh, ko dee sing and then it can attract uh, both the older generation the young generation at the same time so lot I would say I think I will vote more for ST. thank you okay is it right You are going in a relationship but i am xarit bi jigéen. can you come again. is it a is it a don. Come yow góor yaa ngi si relationship ak sa jaaxa or marriage ngay am xarit bu again. Uh, I think uh, in when it has to do with relationship. Uh, yeah, partially it's not bad to, especially in, in consideration to my to my profession. But when you when you get married, I think that is where I. your wife becomes your everything, your friend, your everything in essence. Yes. Thank you. You're welcome. <laughs> Tur bi? Uh, Babacar. Lan mo la andi won ci bi? Wa fi gëna train tanga yaram ni rek. Ah. Yeah. Ana yene ay ay mbeur ngeen? 100% kay. Ah. Yag na? Nga nexe kay nga signé wona yow légui ñu am ko. Waaw. Lool dañuy bolé. Attaque ak exi kan mo la gëna né? Ay attaque full time. Lu tanga nga choose attaque? Xay. Dama dama neex rek. Waaye. Lu la gëna nexé rek? Comme si limuy yëngu rek. Yeah. léegi yow nga ñu amal. daa rab gam yëpp. Ah, loolu foo ko teg. si mëninam rek ak gëm-gëmam waaw. loolu nee na bu maa ngi Haruna. lan moo la man train. ah yow ci mbëri man bokkuma si dama ñëwoon pour exercice xam nga. attaque ak ST <laughs> faj xam nga. lu tax attaque gi daf ma ne comme xam nga. OM ak everything am moo ma ne yeah no naa de yeah kele holal dafa bañ ba tudde boom tagay ñu ne le akar anamu mo attack mo ñëw yengal attack attaque moo yeah attack mo ñëw yengal war attack war leen yengal wo lum ñëw lum ñëw wa mo de duga suñ bopay yeah ST nak non ST moom duma ko de deglu mom to do ko de deg non non non biko xawma ko sax ST ST la de degal rek bay lol non non non ST moom du suma fans ah ok loolu du ñu wala sista nag may ko tur bi Sira lan mo la andi ah dañ amone badé loolu la ñëwoon sabe ah, so ataga ST kan nga gina a like ST lan moo tax nga gën a like ST dafa mun woy te pare wax la dé wax nga te pare suma ma déggee bi suma xol daf dee feex wow um, is it red nga jigen nga nek ci relationship ngay am xarit bu góor ah, reetut nak dëgg nekku yoon mom mm. thank you For mo wara nek sa xarit wow ah, okay. anti nakam jaawaat rek tur bi jéena waa lan moo la andi si biir ñun dañu am badde attaque ST kan nga gën a like ST laag ST nga gën a like lan moo tax nga gën a like ST fa mun way eh, sista naka dafa mel ni léegi neex na ba noppi dafa mel ni jamono attaque ak ST la fi am waaye bu wari bu bro bi baa la gis nga ay laajte seven digits yi de. tu es sénégalais. soo na nga tudda. Euh, noo tudda. Ah. la moo la ah ñun daal day ñëw fii rek suñu sis moo moo birthday tey birthday am la soo day ñëw fii foon you ah, yaa. so est ce que ata man day ma xool ñoom ñaar yëpp suma star leen but. Ah, fo na taakay daal mooma gënal ka taakay gënal ah parce que dafa ma nee dafa mun woy su ma raab xam nga bir biir xam daf dé rap ha nga ba paré olof la la ka tamit ci biram so no mo nee ci biram ana yo tam rap ga gis na la ngay mé non su ma waxee nii la mo nga bi ben rap ata nga méñu ko No, bàyyi mo sera. Ma meñu tuuti léegi mel gay. da nga amee da nga génne sa woon album Yeah, Kaman. Yaya. E woman, woman. Woma e woman, woman. No to da nona woman. E woman, woman. Yo fatu oma ma ma ni mala la Yo yow ma ma ni mala la Dada mala dama la ya yeah thank you Fatou ñu la ma jooy la e ma ma jooy la ma jooy la Sipko, sipko. Bye bye. <laughs> Y'a ko gën xam. Non. Li na ba noppee ah tënk show ma. Tur bi. Alpha. Lan moo laa ne woon si bi. Ah. Lan moo laa ne woon. am foon rek. Lan la bi. ah bi dafa parce que smiling course bi la xam nga. so da so stress mun nga koo ñëw nga wàccee ko. so attaque ak est kan moo la ah man ñoom ñëpp. no you have to choose one. ah man taaga yi rek. lu choose taaga. Ah, ah moom lu mu dee woy dama ko dee dégg waaye esti tam lu mu dee woy dama ko dee ah, loolu laa dee a dégg moo ay man nag maa maa sista naka. tur Sister, bu la naka. sista man Salma Mbuwari. bu la naka. maa ngi fi. bi. Mul lan moo la anu. just like uh, I just came here to have fun like yeah a little bit though. Yeah. lan moo la gën a bi. yeah it's just like the environment and the river issues. Yeah, that's great though. Attack ST, kan mo lagi Um, as usual, they are all Gambian artists, right? But I prefer ST than more than art. Why? Um, because the man is just like um, um, just like saying something that we can learn about environment issues though. How about Atta? Yeah, Atta is cool. Yeah, she demands know how to play the beats. Yeah. Thank you. All right, thank you so much. All right. Well, go on. Guan, not that? No, my bam, bull dega. My cool. Tur bi? Mohamed. Lan moo la andi woon si bi. Dama woon ñëwoon enjoy rek. Enjoy. Lan moo la gën a neex si bi. Maanaam freedom be machine ne xelat mm. bu beuri bi dafa wañeku xam nga ah, stress yu ndaw yi mm. ga teke xam nga moy lol bagwe bi ñoo delo si nañu bàyyi waay non man mosuñ ma delo way wa taxaw man pareewu ma <laughs> digante attaque ak esti kan nga gëna lek non man moy lol man ñoom ñaar ñëpp la lek nañu ñaar yëpp doomi dëkk bi lañ da nga man esti la <laughs> waa xale yi wane neen stand ah, I don't hear you ah, tur bi yaa ngi cool yaa ngi si man dama ñu free man doxantu bi léegi <laughs> waaw bu dee bu dee diggante attaque ban kan nga gën man both no you have to choose one waaw ST for summer ST ST so why because am is most of his music is inspiring am ga hmm. apalagi jangal dara lum dewa dan ko dede ga attack nak my friend turbe man buwa dama la andi won man dama ñew rek enjon suma boba yeah so digënté attack ST kan nga gëna lek man ST dama ta nga lek brikama boyo hmm. yeah lu ta nga dama ko like because def day wax luma dega hmm. yeah how about attack attaque yi def dee wax lu ma dégg waaye xam nga suñ boolee ñaar foo jël kenn thank you thank you ay baax wa Turbi? zal lan moo la andi woon fi football eh diggante attaque ak st kan nga gën a like attaque ak st ah st lu tax nga choose st st am nga dafa mulu eh attaque nag attaque am nga pajab pajab yi moo bëri Sistana kam? Jigan da ta, jigan da ta. Bahal bare. Na kam. Ora no le. Eh. Wah. Na kam. Wah, ini daw kam. Tur bi? Kami akan Turbi, bi faatu lan mo la andi won ci bi layla andi na gam mang fi no tudda man chaaku lan mo la andi won ci bi jutay dama ñewon pour dalu rek noppal sama bop sama yaram nga nga fi le nek ci bi ah bij bi mo wax deug yalla neex na trop machallah fi amul ben problème wax deug yalla ñu koy enjoy bu baaxa baaxa digënté ataga est kan nga gina rek Eh, man nag musicien yooyu noonu wax dëgg yàlla man miinu ma leen noonu xaw ma leen waa. ndax raad na jigéen su nekkee si relation mu am xarit bu ji góor. waaw xarit am na bu góor. Hmm. lu tax. Hmm, am na ñoo xam ne dañ dee am xarit bu góor boo xam ne daf lay xelal lu baax di la wax defal nii di la wax defal ne xam nga xarit moom am na góor am na jigéen. parce que léegi nga am xarit bu góor sax moo gën xarit bu jigéen parce que xarit bu jigéen mun ngay ànd ak moom nga dem ba am keneen nga xam ne def la bëgg mu ñëw jaar seen diggante yaaxaa ko léegi loolu bëri na trop man moom si man man harit bu guru moma gënal bu jigéen. wa jere jërëjëf. naka. mu ngi la no tuda man Yankuba. attaque ak ST kan nga gën lay man Esti. lu tax nga lay ST daf ma neex. parce que ST lu muy wax mo mo nek sama living quoi. yeah Esti moma gënal attaque. yeah Ada ada lu muy woy amul sa mais ST dafay woy lo am sens. yeah. mu ne yow nga na. kii dafa ga di fen. lu mo fen. hey degulo ñu ne hey meti gen dem musa seda hey meti gen mbayo xam nga luy xew man pofal la ma pil ak benen pil ak benen pil ak benen pil takal la ma jen ak benen jen ak benen jen ak benen jen meti gen di are gen estira ko esti ke ba esti baleng atasi ada ni artisol bedi ñi artisol nga budi ada dinding wala bedi ay ya kena atakol bedu mulia ndoma song wola ndama kul ndama to o nge fenden to nyun ye fenden to ala la kenge to wala na la mo la bi anteri di teri di bi ndol fo kon don dañu la bi son bate e jehud lan ci table kuma jo suma respect dina ci kebu hey ame bang dindi masaba dindi masaba dal nara dindi masaba dal bi gawa bete st bi kama boyo respect ko di ala kapteno ndama niyamuta wonyawa niyamuta wonyawa na tempo lose hey ata mundogeri no ma hani is me one man ana degloji ne one man atang nalo tagay da kala jango ngong buno analo monega kan number one dada e boy Micah number one mamangini di neka di rap gade de mane di jauh. duga na studio funeka, gade ga di jauh. meria mane di horek mai bale la bota wa bale ba walel because my people la de ka mamale ga dapin. pain na tuda kewa lan mo la man train train yeah digante ada ak ST ban artis mola la gëna ne digante attack ak ST No, nyonyo. man antuma sama artis. yeah Si ce que raar góor mu nekk si relationship mu am xarit bu jigéen. nga ne itis. comme yow góor nga nekk si relationship ngay am xarit bu jigéen. waaw ken, man suma xarit yëpp jigen lañ. yeah am xarit bu lu waral ah booy jigen yi ñoo koy yor booy. góor ah góor yi mooy loolu booy. man am friend bu góor mënuma koo am sax. yeah xarit yi jigéen léegi laa am. si maa ngi góor so. tur bi <laughs> eh, man maams la. yow rap nga. non man du ma rap waaye nga <laughs> lu ci télé mi rek doy na. <laughs> lan moo la andi woon si bi. waaye boys yi lu ndaw rek waaye diggante attaque ak ST kan nga gën a laaj. di mu man ST laa apprécié mooy suma broda pour nga si lu nekk kala wéy na min been kono ongo epende nkolo dunie minjenja turbi sirin Serigne lan moo la ah fii dama ñëw freeze moom meen lan moo la gën a ne bi ah ndoy Gambia nii yeah. So diggante attaque ak ST kan moo la gën ne ah ST lu waral ah semua ma woy main man di so what about attack non dama ko dee déglu tuuti nag moom dam star yee. so is it right yow góor nga nekk si relationship nga am xarit bu jigéen. yeah yeah sure. lu ah xarit yi jigéen yi ñoo ñu suñu ak jigéen la àdduna xam nga so foog ñu am xarit yi jigéen yi yeah. thank you. yeah jërëjëf. thank you. salaamaaleykum. yeah maaleykum salaam. noo tudd My name is DJ Oh Boy. Yeah. You're DJ? Yeah. Mm -hmm. Just to come and free my mind, you know what I mean? Talk na kirbe sona, nelo na we sona. Yeah. Yang ya, meni kuy rap ni hadang nang ni buka rapal. No, ne ko rap. Yep si wahin bila ham ga. Yep man. Yeah, yes si man rek. Ragal lu tek. Yeah. So ram la amolon question. Yeah, ne question am hol tam. Digante attack ak ST kan nga gëna lek. Yeah, digante attack ST. Ya, Yeah, attack moy suma fans nak yeah. Nga choose attack. You because of ata dapat demala generation before nekani kuneka time amla. Yeah. What about ST? ST mom wow. ST mom si bena borna mo pay na ñoo wara demangum nak. Yeah, ak mairie am nga. ST ak pay ak mairie ñoo wara Wow, yeah. Parce mom si generation yalla kan? Yeah, mom si another generation kuneka because of kuneka time amla, kuneka level amla. Ah. Yeah. Kon jamono ah? Yeah, attack moko mom time bi jamono ah, Yeah. So is it that you go nga nek kan kan relationship nga am xarit bu Oh, sorry? Is it right you're going to a serious nga I am bu jigéen you. Yeah, is this right? Because of low montage is right. Hol mo koy fi lo. Hol lo koy merlo di ko ligante. Yeah. So noonu nga ko jàppee ah. waaw man loolu noonu laa ko jàppee. nice loolu du kof. yeah thank you gracias ah. merci beaucoup ah. <laughs> cool tur Muru. Modou la mo la andi won ah, stroll rek la mo la gëna ness bi ak environment bi ak yoy so digënté ST ak attaque kan nga gëna lay ST ak attaque non man ma ngi tagai? tagay lan nga ci tagay non ah. yeah mo is it that yow goor nga nek ci relationship nga am xarit bu jigen waaw lool mun yeah lu waral lool ah parce que xarit ñom xarit jigen ñoma di léegi xarit góor yi jigéen liggéey jigéen la ah góor yi kay bàyyi mooy loolu mooy góor wax rek wax bu bëri rek. Ah. yee thank you ok jërëjëf. tur bi. man Aliou. lan moo la andi si biir bi. yow doo wàññi sa caméra bi tuuti. waaw lan moo la andi si biir bi. man happiness rek. Yeah. So diganti ST ak attaque kan nga gena lek? Diganti? ST ak attaque kan nga gena lek? Yang gak nga ST mo sama fams ST mo la jilla ST. Ah. ST attaque. maa mistake loo. Brikama boo yëngee wax de. non non non Brikama boo moo mun laa Brikama happy. man moo Brikama boo fu mu nekk da foofu laa duggee. Ah. mbaa mun nga wéyal. non man mun naa wéyal ba du ma dee wéy de. wéy <laughs> <laughs> Eh, <laughs> non ba man kay baalal xabar. ma sax. waaye man Adama. lan moo la andi woon si biir. ah dama ñëw fexeelu rek. Mhm. diggante ST ak attaque kan nga gën a lay. ST. lu dee wóy ndax am daf daal. daf dee conscience. Hmm. so est radio que rajo nga nek si relationship ngay am harit bu jigen waw mu na nekk. luta mu na naa te sum ma ko suma feeling la rek. thank you. suma feeling la rek. maa ngi nii. noo tudd Yo yow suma tooba nga sax ngay daw suma caméra. Mbadu. <laughs> la moo la ah dama ñëw pour am phone ni rek tuuti. Mm. diggante ST ak attaque kan nga kenal lagi? lay man boot ñom ñaar yeb no you have to choose one uh, attack mo nek suma fem lu da nga choose attack artist ah da nga choose attack no suma fam sa ak lu mo woy tam dafa ma neex lol neex na wa okay thanks ah. bro bi rir na ma di <laughs> no ñi dun dem It's Sunday beach, so we are in kasumay kasumay la nek, kasumay kasumay camp. <laughs> Lan, hala ma boy di daw. <laughs> Malah may daw kamera lah kamu Ah? Pokali gol bu tane yeen ngeen daw. Gol. Tur bi? Man Sali la tuda. Lan mo la and ci bij? bi. Dara dama ñew xol ci rek. ST attaque kan nga gëna lay? Man attaque. Lu tax nga cius attaque? Parce que attaque mo daxawuy. Attaque naka la daxewuy? Waaw, fay deuxième morom. Eh. Merci. Bro nakam? Wa cool. turbi bi? dada eh xanaa yow loo bokk ak Dada man non gaa de ooyee dara nii rek dama xam nga freestyle yi noonu noonu xanaa woykat non ah. ndax mun naa woy ah. mun naa woy dada yi mais mais <laughs> dama faj leen benn sax ñim boos tele castillo kaña ñaal kama everything like so specific ñaal kama ñina damen kiliñil be yalo musa bal kana ñi highway mo bu kawt no jangjal tala kata dara nga yeb dara nga yeb digante ST ak attack ban artiste nga gëna lek man ST attack mama si takay dara nga ci takay ah ñun takay mo naka so artiste ye yeen da ngeen si takay rek man si takay putin ah, thank you Alright, right ronahal wala dere man <laughs>

non su may benn wuyu mbala yi fecc de. waaw loolu leen bëgg fecc fecc leen bëgg. non bàyyi ma jégal la rek bàyyi ma jégal la dox leen. lu la la. Ba. man Modou laa lan moo la andi man très man cepee rek andi. attaque esti kan nga gën man attaque laa gën esti. lan nga choose attaque. parce que attaque attaque cuunam moo dee maa ne bu ST. bu ST bi kay ma nu understand soo seet la. ana yow dégguloo man kay ma déggu ma ko. baax na cool ah. moo la andi woon si bi. non dama ñëw man ah ST moo nekk suma star. lu ta nga jus ST ST mo mun gam ya yeb sax mun nga ST man Mau dama lay dira mun ma xam wa ñamal ñu tout ah la bulo aja santo santo bulo bulo bulo bulo bu le santo xam nga dama xam bro may cool tur man Ousseynou la tula eh la mo la andi won ci biti bilaay dama ñëw union suma boba fi ya nga free mind ak yenen ak yenen eh man digënté ST ak attaque Wow, man didn't expect attack man ST one nigga suma ah, Yeah. lu tax nga choose ST. lu dah ma choose ko because of William ak nu ma behave ak lifestyle up ak lenen ak lenen ak leneen. maa mun nga wéy ST. Wow, mun naa choose mun naa la laalal som rek som rek. te laaloñ benn benn som rek. <laughs> Um, ñun ndoke la ñiiña ndoke maaña kodo la ñiiña wo wo suturo nyi ko mandika ka ase nene ae momo asila kodo be domo ane nama ke kadu nono aba ko ren ke kadu nono ni velara ka poso momo Brana, diggante ST ak attack kan nga Ya mi ak ya, like I'm always ST. Why? is the best. So uh, so wayambe. Hmm, actually no, but I think it's the best. Why? The man feel there some. Yeah. Is it very good nga nekk si relationship nga am harit bu jigen? No. Why? Because so jëlee example si man man mom suma jaha mom bugu mom associate ak benn góor cause lolu mom problem la. Yeah. No ma tax do ko def. No, duma ko def. Thank you. Amu benn bestie. Man jaha no. I just I have only one and I'm proud of her. Thank you. Yeah. Tur bi? Ah, sëñ Sirif Sirif la tuddu. Lan la andi won? dama <laughs> ñëw ni rek pour xam nga jël air. lan mo la gëna a bi. bij bi bo ñëwee da ngay gëna sa stress bi am nga affaire bi coono bi da bari ci dëkk bi. waaw bo xëyee liggéey ba dimanche jot nga ñëw fi ni wacc stress bi. digënté est ak attaque kan nga gëna lay xa ñom ñaari like ma ci kenn duma dé dégglu ñoo ñooñu sax. ñan nga dé dégglu King Baba nga xam Blindé moy sama rappeur. mën nga wéy. ah mun naa wéy. acca may ko. waaw time bi maa ngi lekk doo ñëw <laughs> jëlëf chicken laa laaj gis nga jëlëf chicken. non mais ñu si benn rek. bi ah. boobu bi after rek. ah, ah mënoon bro naka. jaa rek. tur bi. Dembo. lan moo la andi si bic bi. ah bic bi xanaa stroll am life. diggante ST ak attaque kan nga gën a lay. ah xanaa dégguloo ma laa cuun bi. kan. lan moo la gën a neex si attaque. ay attaque attaque baat maa la. mbaa mun nga wéyal. yee mun naa mi non bàyyi ma aju leen rek. meññ si wala yow raapa nga yow. non du raapa sax waaye maa ngi ñëw si kanam. Ah. amuloo benn woy boo génnee nga may ñu ko. non génne waa nguma. loo naka. ay cool. tur bi. ala. ST ak attaque kan nga gën a lekk. attaque. mun nga woyam. may ñu ko. balal ge mais balal ge rek. <laughs> yéen dafa ni yéen seen fan. <laughs> ah yéen mënu leen rek. ko baaw leen balal ñu yëpp ñu ma ñu wax ñu wax ST moo nekk seen fan ñëpp den woy ST yéen rek a woyut. mais rek. non ma ñu ku <laughs> yow. yow moo ku dem pël nga pël yi ñemewoon caméra pël yi ñemewoon caméra ah moom artiste la. mooy artiste de. nga ca mbéy ñu ko. loolu ma laa amee. man nekkuma de. maa ngi baax. tur bi. Oxen. lan moo la animal ci bi. non non non man ñi di miir yaa. lan moo la andi woon si bitti. non dama ñëwoon doxantu. Ah. diggante ST ak attaque kan nga gën a lay. man attaque. attaque lu tax nga cus attaque. waaw dafa sound. mun nga wéyam. wéyam it comme ba may yàqam di waaye. <laughs> yow attaque bi sa fans de. non sama fans la caaxaan ma. wala yow rap nga. non ma ne ko rap nga ñi di media la am. si naka nga nekk ñi di media. na action la. action la. ok. maa ngi fay tur bi. Mariama lan moo la andi woon si bitti. man bij bi tey lu ma fi asi mooy comme dama ñëw am fon ak suma gaay xanga su ëllëg job la so tey moom mën a xaara ñu ñëw xanga ñu am fon mais loolu dañ gëj a sax lan moo la gën a neex si bij bi bij bi daal soo ñëwee fii comme like xanga venue business so man loolu loolu laa gis daal soo ñëwee yaa ma wax ne la sa smell bi dafa nice bàyyi <laughs> kan nga gën a lekk eh ma ah, eh. mun nga wóyam wóyam <laughs> waaw mën na sam ñama ñu si tuuti rek <laughs> côté la foofu noonu sista baalal ma mais <laughs> ñu si tuuti ok hmm. mu ne atela dada atela tija atela no mari ma menno dole ya nu, kani pachalo wandi dingo nyaka no daja wuni nyaja woste awe jemala sente je ka poko mampare no sina dol bije wul mam futu wono akel akel dine estime ngeni ma estime bu jigena ngeni de ma ini wes ma babbi ma ma de ndax babbi na? okay so est ce que jigen nga nek ci relationship ngay am harit bi gor deguma sirraat ci yow jigéen nga nekk si relationship nga am xarit bu góor nga am nga am xarit bu góor ah ah ah bàyyi daal warloo am xarit bu góor de wara war nga wara a def sa xarit safar boobu nga war a def xarit nga bàyyi ñëpp si suma gis-gis daal xam naa loolu la. ëpp na de tur na <laughs> sista noo def. jaama rek tur bi sira mbaa yëg nga ne rafet nga. ah no, <laughs> lan moo la andi woon si bij ah bij bi moo gën a ñëw rek comme xam. am ngelaw daal ak yooyu noonu daal. neex na ba noppi. Mm-hmm. ST ak kan nga gën a lekk. ah ST. ST mooy sa fans daal. yaa macha allah du ma leen programme daal de bot su ma déggee musique am di ko seetaan si télé yi nii xam nga daf ma di ne. maa ah, mun nga woyal. ah am na yeneen yu mun munu ma. ñu si tuuti rek tuuti rek. sa fans yaa laa de fans ST. ñu mesit baala rebe beneen yoon thank ah, you soo gisee nga nekk si relationship nga am xarit bu góor. ah non macha allah man dama sëy <laughs> waaw. ndax ku sëy tam dina am xarit bu góor. ah am na ñoo xamante ne ñooy am bu nekkee bëgg nga sa jëkkër sa jëkkër may nekk sa mu nekk sa lépp daal bàyyu ma dara ah, xanaa yow nga nekk sama xarit. <laughs> boobu deal doon la thank you. Adam so let's go it's Sunday Beach so comme ni ma leen ko waxee woon gis ngeen ne. ah te daal kasumay daal may loolu përeeg joolaa yaa fi bëri nag waaye. man Ibrahima. lan moo la andi woon tey si bi. fii ah xanaa am na boppam de ma enjoy. da nga koy enjoy sa bopp. waaw kay. lan moo la gën a neex si bij bi ah ñëw naa fii nii xam nga am naa foon am naa lekk naan may naan ataya. mbaa ma ni ngeen ma may si lekk kay. waaw ah soobu ngeen nga naan ataya de. ataya bugguma ko li laa bugg a ganaar ganaar. ganaar waaw après nga defee ko ganaar eme mu mu cob. <laughs> waaw diggante ST ak ataya kan nga gën a lekk. hey booyo. ST mooy sama artiste. ST nga mooy sa artiste. full time lan moo la gën a neex si ST. non ST xam nga ST comme Ndeye Woy dafa make sense xam nga comme dafa utee gars yi ST comme génération bu nekk comme mun a ànd ak waaw comme mairie mu ne ko déglu xam nga xale yi mu ne ko déglu comme mun nañu advice tamit waaw. mbaa mun nga woyami. ay ST kay ST kay mun woyam kay. soo ñemaa tuuti si woyami <laughs> waaw dama ñamaa la woyami. esti du musa bayi gembi bi lu mu métti métti duma Moussa Taye seben trax lu ko gaay alen leen soo yi mag gas ma jël yi ndawi yi ngi sàggu dara MC bu touri esti estire dafa para voilà junior esti nga <laughs> thank you ya, har har ya mom moom dañ ko yóbbu dañ ko yóbbu Sweden suma dem dañoo anda mom so anaka nga gisee bij bi tay ah bij bi sa mi ne ñu am fon xam nga bo ñëw fi saxal bi dee dal do am loy halat Mm-hmm. Ah, okay. Jadi nanti ti ST ya, atakan nga gina like? ST. Lama tak nga like ST? ST. Ah, mom lah ada jenah ada da o ya minta ini enak Mau Mun nga ST. He, mambo na ya. Wow. mau nyusi tuh rek. Kodi kuto, kodi kuto, kodo be, kodo. Mhm, fo fly. Wa ki ki ku halis da mom kodi kudo rek la si jafo mom. Mom kodi kudo kodi kudo. Mom ni yo halis bi da nga si tiye dal. Money is life. Money is everything. Ah, okay. Money is, money rules the world. Ah, okay. No kii Mumu am fayda Mumu kudu, kudu kudu kudu kodu moom kodu ba rek la ah, lu ñuy daw. Kok kontaan rek. Ah. Mhm. No, la non man Mustafa. Al moo non. Anak woon. ànd suma rakay rek. toog follow ni am nga. waaw lan moo la gën neex bi. bi rek danaa ñëw naa si jaama kay bëgg a ñibbaat si jaama ST ak kan nga man moom musique moom la si lan nga xam lu bari man ay walum quran yu noonu rek ah, ah hmm. merci beaucoup waaw ah, man laa xam jërëjëf Mohamed lan mo la andi woon eh, <laughs> man nga sista man bi mom danañu yu ba ni won ci bi man non dama ñu free man ni rek ay ah, mo la gën a neex si bij bi bij bi ah ñëw moom daal yëpp neex na eh. diggante ST ak attaque kan nga gën lek Ah, man attaque laa gën a like nag waaye comme du ma leen dee fulool noonu nag. Hmm. Eh. lu tax nga like attaque. attaque ah wéy neex rek. Hmm. Eh. wéy moo la neex nii daal. waaw wéy moo ma neex rek. Hmm. thank you. Eh. Ah comme doxantu ñëw seet ciil bi non xam ah nga. diggante ST ak attaque kan nga gën a like. man ST laa gën a like. lu tax nga choose ST. xam nga moom moo fi nekk big artist xam nga. big artist. soo yow ana artist non nekkuma artiste de kii ma doon comme ndax nii la waaye man nekkuma artiste. mun nga woy est. non mun ma woy est nag. ok dama ko lay lan moo la andi woon tey si. bii dama ñëw am fon nii rek comme check si environnement bi nu mel. lan moo la gën a neex si bi. ah comme fii kaam na saaw na tamit amul noise bu bëri comme palma nu mu mel rek dengan ST ak Arak kan ah, nga gën a dengan diggante ST ak attaque ba mo fun foo mun ti dugg ST boy. la man mun ngaa war ngaa mun a mun wéemi. ST. ok ah, mun naa mun wéem kay. kon menu si. Wah ma si ban boh woy boo gue rek woyal ñu ko rek. ci cuunaam yi nga dama rus kom si nekk si media bi. waaw tuuti rek nga ñun sax dañ dee rus. di woy ni dem way faabu jotul li cuun boobu laa gën a acca terus درس nah, ناكم nih aku nggak دم ديروس <laughs> oke Oke eh, ya, iya, ايبا malah tak gal ngeen boy si mun a xaajaan loolu rek ma jaaxal man ya ngeen matul ah Mustafa. lan moo la andi woon test Hmm ah dañ ñëw pour pati ini ram. nga diggante ST ak attaque kan nga Hmm a like ST mooy hmm, sama ST mooy sama artiste bi la moo tax nga like ST because of day wax dekabi, bi xam nga tey woyam itam daf day wax foofu lu am lu make sense xam nga fa how about attack. Ah, attack moom otherwise dama ko dee like nag yeah, si yeneen yeah, because comme I like the appearance you know comme Batman la xam nga moo tax ma like ko tamit yeah, something like. mun nga woy esti. yeah mun naa. tuuti rek. ah ay tuuti rek laa mun na. yeah mun na nigga move. Sanjitang dila couldn't step in my shoes. Sanjitang kije kotenke I will never lose. Karandingol la terendiro mante move. us nangan na tempo lus kapteno recrutole loku no jambeno mbederindo kel kabaku, fo pelo gam and juice ati nangan na tempo lus <laughs> okay barman ga? thank you damn what is your name man yeah i'm from california man you you we lo love kaki yo koku man network man no we not yes i'm doing name man lan nga bokk ak network yow. non non boo koy noo. Ah. mané ne tàngal nah, ko raw neex na xoolal lii dama ko waaw nga kan? man oh man wo dara no sudu man man bay la mo la andi won man pour xam nga pour pour jami yaram rek pour seral suma yaram xam nga pour ñëw ambiance lan mo la gëna neex ci bi man bi eh. mu mo gëna ya, neex pour comme hmm. waaw moy loolu dal <laughs> Mom, let me, mom, let me down camera, baby. Damn! I'm a Scully fans, man. I'm a real fans. I wanna tell you something. Yeah, I wanna get rich yeah, for what I'm daddy. Yeah, Miami house to Miami. Tiba tiba go Miami. Tawo majo, ragalu maka. Bring it on. life is a me for so speed. Muga more complete. My life, damn, no. tur ibu. Ibou. lan moo la andi woon si bij bi. jigéen rek comme la woon fa woon rek. Ah. Mhm. lan moo la gën neex si bij bi. bij bi maanaam jigéen ñi daal seen sol yu bon yi moom gën a neex. ak tamit FM bi ah. xanaa nga yow. man waaw dama leen rabantu de. waaw ah, meññ ko tuuti ah. waaw yàlla la dogal <laughs> waaw yow raab raab riir raab dama mën a raab di def lu dof tegu si taa di ko nduuréen maay booy xanaa ngeen ne naka Roots FC laa jógee namba seven laa dee taka téye meeg def lu dof dama téewul meeg booy daaxuñ ma raab dañoo sóob di def lu dof xëy xanaa ngeen ne naka ya nga sani bades borom xale yu jigéen yi eh, borom xale yu jigéen yi la this is Sunday beach so this is fun time bi namu ca yamu ca la non tey duma jaar foofu mbir bi damu jaxaar pacc li mu ris bi jël bi boroo rek taxaw mooy kasumay mu tëgg sa bëm ñu doon laajte nag mbiri stick attaque kat ngeen gën a like ñi naan sti ñi naan attaque mu doon lu xumuta dagana ah? no Gambia is nice this is Sunday Beach so once again bye bye ciao ciao ba beneen dimanche